waa Tipo sama xol kat gu bees kii ci kër gi nag ti chambon sa yére chambon ba ci kuddu bi sa chambon di sama turandoo moo fi jaar ponkal bii mooy saabu Tipo ñetti saabu la ci benn mooñ fii ci senegal lañ ko defaree day fóot mu set wecc te parfumé boo koy sangoo sa yaram day set te nooy ci kër gi léppay nes na si te des na tipo antimicrobien la microbe bi yëpp lay rey daanaka daf ñuy aar di aar suñu njaboot. <laughs> tipo le choix malin. baax ci kër baax ci man. <laughs>

alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashabi ajmahin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu xawli mbokki ñi déglu te di ñu seetaan ci seen télévision Futurs Médias ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi leen di ndokkeel bu baax di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan yàlla suñu borom mu jéggal ñu mboolem suñuy bakkaar moo xam suñu bakkaar yu njëkk ak yu mujj yi ñu tay ñu tayul amaa yi ñu def ba noppi wala yu ñuy bëgg a def moom suñu borom mooy jéggalaakoon bi yàlla nañu xool ci yërmandeem te jéggal ñu mboolem suñuy bakkaar yëpp. mbokk yi ñu ngi nuyu bu baax a baax tey siyaar ci bis bu tedd bu màgg bi nga xam ne moom la ñu dëgmal Eh, di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne moom mooy xalif général des Mourides di ñaan suñu borom mu dolli ko fee yàggal te dolli ko wéral eh, ba mboolem li mu yéene ci liggéeyal ko Cheikhul Khadim waaye juriñu mu tedd ya doon ko defee noonu la ko dalee ci Cheikh Mouhamadul Moustapha eh, ba ci Serigne Salikou Mbacké tàmbale ko ci Alaaji Bara Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké ba ci moom yàlla na suñu borom defal ko mu mottali mboolem naal yi nga xam ne yëpp way juróom yi ak magam yi naaloon nañ ko Euh, ba naal naali boppam ba yeggale ko ba naal yeneen te di ko yeggale ni ko suñu mbokk mi di waxe rek euh, nay naal di yeggale tey naalaat di yeggale waat sax ci ak di sottal nun nu koy seere mbokki na xam ngeen ne jataay yi nga xam ne groupe Futurs média mi ngi koy def rawatina télévision Futurs média Eh, di ko waajale bi sub ko tedd ki di Seexul Xadim nga xam ne waxoon na ne lépp lu ma am ci laa ko amee eh, ba tax na bu accepté nañ ma ci santale yàlla suñu borom subhanahu wa mi nga xam ne eh, moom bu may tedd nga ji ma am adduna ak alaxira am ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam te loolu maa ngi ko amee ci bis bi nga xam ne moom ci laa jóge woon Mbàkke Bari dem ci géej ci la waxoon ne xarajtu yow ma sabti zamini asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar bis boobu nag mbokk yi moom la ñu dëgmal mu war bi la ñu dëgmal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum 2018 war a doon itam fukki fan ak ci weeru safar ci atum 1440 loolu moo tax télévision Futurs Médias yéen a ngi seetaan fan yi yëpp jataay yu am solo yi nga xam ne moom la ñuy def ci reportage yi mboolem gox yi nga xam ne yëpp sëriñ bi jaaroon nafa fa ak itam waxtaan wi am solo yi ñuy def ci jumaa ji ba ci émission yeewu leen bi nga xam ne yéen a ngi doon seetaan léegi ak soxna Faty Dieng Euh, niki noonu itam moo tax ñu indi leen jataay bi ngir euh, gën a mën a matal liggéey bi euh, bay taxawaay bi nga xam ne moom la groupe Futurs Médias amoon ci màggal yi passé woon fës yu ci yéene wàññi dara xanaa kay yokk ndax olof day faral di wax ne ku yokkul yaa wàññi télévision Futurs Médias nag dafa fës yéene yokk li nga xam ne moom la doon def ndax dégg naa ci président Youssou Ndour mu wax ne Serigne Touba mooy numéro un ku bëgg a doon numéro un da ngay ànd ak numéro un te liggéeyal ko loolu moo tax eh, télévision Futurs média fas yéene di liggéeyal sëriñ bi mbokki nag eh, jataay bi de dañ ko fas yéene jëmale ci eh, lenn ci njàngatum sëriñ Touba ci loo xam ne ay jëfam la doon na ko jëf moom sëriñ Touba ci boppam doon ko jàngale muy wàllu xidma xidma nag buñ ko waxee lu yaatu la mëni sa cee dégg xidma bi nga xam ne fii ci àdduna lañ koy fàggoo wala xidma bi nga xam ne dont fi la ñu koy fàggoo waaye ëllëg yomal xiyam moo ko tax a jóg ndax bu ñu fàtte ne suñu borom subhanahu wa taala moo ñu jàngaloon ci alquran ne wabtaxi fi ma atika allahu daaral axira wala tansa nasibaka min ad-dunya mu mel ne da nga ci déggee kon ñaari kër yëpp léegi nag kon Serigne Touba ak xidma sëriñ bi ci boppam nan la doon xidma eh, ku ko bëgg a xidmaal fan war a jaar eh, xidma ci yoonu murit ak yi ci aju mboolem njabootu Serigne Touba gi fi jaar ko ci nekk def xidma bu am solo loolu mooy thème bi nga xam ne tey jii moom la ñu fas yéene waxtaanee ñu dalal ci nag eh, ñaari kilifa yu tedd bokk na ca Serigne Abo Kebe Serigne Sanibou Kebe Euh, mu bokk ci njabootuk sëriñ bi bokk ci njabootuk sëriñ Touba sëriñ Saliou Mbacké euh, bokk ci njabootuk sëriñ Saliou Mbacké moom sëriñ euh, Abo Kébé moom la ñu ci jataay bi muy borom xam doon ko ñu ràññee ci yoon bi màggal gi jàll gis ngeen jataay yu am solo yi nga xam ne seqoon na ko ak télévision Futurs Médias sëriñ Abo Kébé moom la ñu ci jataay bi ak sëriñ Mamour Mbacké xam sa diine moom dañu ko présenté ku ñu xam la mu yëng fële ca Lamp Fall moom it di am liggéey bu am solo boo xam ne mi koy def ci yoon bi Eh, di liggéeyal Serigne Touba ci wàllu xam-xam mu doon ko ñu ràññee xam-xamam waaye ko ñu eh, dëggal itam ci wàllu xam-xam eh, dañuy tàmbalee jataay bi ci Serigne Souhaïbou kebe Serigne boo ñu bàyyi la nga nuyoo ñu mën a dugg ci waxtaan bi ak télévision Futurs Médias bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi sëriñ Mame Mor ñu ngi leen di nuyu di leen di nuyu sagan gu tedd gi sëriñ Mame mbake eh, xam sa diine di nuyu seen tele bi ak mbooleem ñi ngeen ci àndal di liggéey di rafetlu bu baax a baax seen liggéey di leen ñaanal yàlla taxaw leen te dëgër leen ci mission bu am solo bi ngeen di def ci eh, tasaare leen Sëriñ Tuubaa ci xew-xew bi jërëjëf euh, sëriñ Sohaibou ñu ngi lay gërëm bu baax di la ndokkeel di rafetlu disponibilité bi euh, ndax euh, bi ñuy jokk ak guddi na waaye teewul xam-xam gu la xam-xam itteel gu la xam-xam itteel tax na li nga jàppoon lépp da koo bàyyi ngir man ñoo gunge ci jataay bi sëriñ Mamor Mbacke xam sa diine kon sëriñ bi ñu bàyyi la nga nuyoo. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurri al mayamin wa ala xayri xadimihi dil habli al matin wa man iqtafa atharhum ila yawmi ddin ko julli di assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi sante sun borom subhanahu wa taala julli Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal Cheikhul Khadim ñoo ngi leen di nuyu di siyaar di ndokkeel di ci Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo nekk ci bopp yoon yëpp ñaan suñu borom li mu naalal sëñ Tuubaa yéene ko ko liggéey lépp maagale ko sagut lépp naanu ko moom ne nuyu baax sëñ Moor ci dalal gi ñu dalal te sant itam ci taxawaay bi waaye nuyu suñu mbokk mi daje sëñ ab sëñ Abo Kebe am mbégte itam ci bokk moom plateau bi ñu ko nuyu baax baax di ko dokkal di ko siyaara di ñaan suñu borom bis bi nu dëgmal yàlla àggal ñu ci ak jàmm te suñu bon defal tawfiq ba ñu mën ko dundal te nangul na ko te fulal na ko barke Seex Xaadim amin jërëjëf euh, sëriñ bi sëriñ Mamoor Mbacke xam sa moo doon nuyoo noonu léegi ñu ngi koy jaajëfal bu baax euh, moom itam euh, di rafetlu teewaayam ndax moom it euh, wax dëgg yàlla bàyyi na lépp lu mu jàppoon ngir mën a ñëw ànd ak ñun jataay bi xam naa laaj bu njëkk bi sax dama koy tàmbalee ci moom sëriñ bi bu ñu bëggoon a xam lan mooy xidma maanaam lan mooy xidma mën na indi baat bi mën naa indi baat bi ci général mu di alxibaada mu gën a yaatu wala boog alxamal alxamal nga xam ne moom mooy mooy boole lépp bu ñu bëggoon a xam lan mooy xidma wala alxamal mooy lan lan nga ñuy tontu. jërëjëf sëñ Mor ñaari baat la yoo xam ne jege nañu tam am tuuti ak wuute muy al amal ak alxidma al amal suñ ko waxee ñaari la ca ëpp dafay jëm ci liggéeyu bu aada ci misaal ko ubbi bitikam di jaay wala atelier moo xam atelier lu ma doon di ca liggéey di ca sàkko loo xam ne lu lu lew la lu mën a jaamoo yàlla wala boog lu lu mën a faja ay soxlaam loolu la ñu tuddi al amal bu dee xidma na day doon loo xam ne dafay delluwaat ci yàlla ndax dañuy wax ne ñaar xam al ibadatu wal xidmatu al ibada dañu wax ne mooy loo xam ne amul njariñ ku dul koy def xam nga sooy julli yow muy julli rek lay jariñ sooy woor yow lay jariñ xidma nag mooy jaamu yàlla goo xam ne dafay jariñ keneen muy dimbale te yàlla tax mooy jëf joo xam ne da koy jëfal yàlla ndax bu fe bu dee ci ci ci ci luxa li mooy jëf joo xam ne jëfaloo ko sa bopp keneen nga ko jëfal mm-hmm. moo xam ne yaa jël ak pay wala jëloo waaye suñ ko waxee ne ci yoonu murit mooy jëf joo xam ne keneen nga koy jëfal waaye jëfoo ngir payu ko teew maanaam sàkkoo ci payu ko teew sàkkoo ci daray tey waaye danga ko dégg ngir ngir mel yàlla payu ëllëg mooy murit doxee rek mm-hmm. suñ wootee xel koom nga dagg sa yitte bàyyi sa liggéey dem liggéey mm-hmm. doone nañ ma fay delluwaat ci sa liggéey mm-hmm. suñ wootee daayira nga nga dem nga dagg say soxla dem jox lu laa nga joxe loolu nga xam ne soxluwoo ci daray tey sàkkoo ci daray tey ëllëg a tax Eh, loolu la ñu tuddee xidma mooy kon moo tax mën nañu ko tuddee liggéeyal yàlla kon jaamu yàlla liggéeyal yàlla du benn jaamu yalla mooy ibaada mooy mooy mooy mooy mooy li ma junj léegi mooy jaamu yàlla goo xam ne eh, dafa yem ci yow ak sunu ba mi ngi koy jëfal rek waaye nag bu fekkee ne keneen da cay jariñu rek mm-hmm. mooy day njariñ lu jàll ci keneen mm-hmm. te loo xam ne soxlawoo ci dara tey loolu ñu tuddee xin ba ci tënk lu mel ne taxawaayu saxaaba yi waaw comme saxaaba yi ni doon taxawee mm-hmm. ndax mooy mooy mooy mooy yoon wi rek mooy iraada iraada gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa wootee seen doxin mooy doxin bu saxaaba yi mooy moo daa duñu ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci din la ngeen roy moo tax doxin boobu rek moom dañ daan def ngir jëmmi yàlla euh, euh, jihaad jaag jaayintegal lañ doon jëf lépp ak da ko taxawal lépp ngir jëm mm-hmm. yàlla taxoon mm-hmm. te soxluñu ci woon dara tey lépp ëllëg moo tax ñu mm-hmm. kon loolu mooy xidma ci ci ci tënk ci tënk bu gàtt dëgg la waaye eh. mu nekk baat boo xam ne Sëñ Tuubaa fonkoon na ko lool daa ko jëfandikoo dund ko looli nag ba tax mooy li ko may turu xadiimu rasul mooy dafa ibaada gi moom la jëfandikoo ba tudd Abdullahi jëfandikoo xidma ba tudd xadiimu rasulillahi kon ma ma eh, mbindam itam da nga gis da ci feeñ bu baax a baax a baax xam naa demee ba ci biir waxtaan incha allah loolu dana gën a fës incha allah la Eh, jërëjëf sëriñ bi eh, sëriñ bi sax eh, xaaban maqaami an si wal baaxil xadim waaye inni abdun xadimun la wax kon xadim googu di feeñaat foofu sëriñ soxna bu xam naa bu ñu bëggoon a xam ci lu ci lu tënku rek sëriñ Touba ci boppam moom nan la tàmbalee ab xidmaam maanaam laataa ñuy wàcc ci murid yeeg yoon wi moom sëñ Touba fan la tàmbalee xidmaam ah, jërëjëf mën naa sax laataa yoonu murid fan la tàmbalee xidmaam jërëjëf sëñ Mamor di rafetlu bu baax a baax sëñ Mamor xam sa diine mhm. eh, leeral yu am solo yi mu ci indi mhm. ci termo bi ñu xam ne ab concept suufi la mhm. ab déggin la ci tasawufu xóot nga xamee ne boo doon dem ci référence yi tasawuf di ko jàngat da ngay gis ñuy indi bu baax baatu xidma eh, waaye lii xaasiyatu Serigne Touba li li nga xamee ne mooy particularité Serigne Touba dafa dem noonu benn aw déggin woo xamee ne euh, wu vague maanaam dañ koy jëfandikoo sax waaye ñi koy jëfandikoo taxawuñ ci leeral ko jox ko maanaam mu xóot ba noppi exploité ko pour mu doon ab wasiila bu ñu mën a jaar pour. liggéeyal yàlla ak àgg ci yàlla ak jëriñ mbindéef yi Sëriñ nag ñëw uh, liggéey ci liggéey bu toll noonu ndax gannaaw bi mu doonee ab concept suuf yi day am maqaama moo xamee ne yàlla da ko ndëxalañ yoon Sëriñ Tuubaa buñ demee ci maqaamaatu tasawuf danañ gis ay maqaamaat yu baree bari waaye maqaamul xidma daa mel ne gis ci téere yi eh, ndax loolu day jagle gu yàlla jagleel Sëriñ Tuubaa nga xamee ne raaba yow nga ko léegi mm-hmm. raaba maqaami an siwal baaqil qadim mm-hmm. mel ne mm-hmm. yonent bi alayhi salaam waxoon na ne sayyidul qawmi kii liggéeyal nit ñi mooy mooy mooy mooy seen kilifa mhm. xaw mi nag bu dee suufi yooyu mhm. ka nekk seen kilifa kon mhm. mooy ja xaadim ba kon dafa mel ne bi ñu ñoon na ko euh, maqaama moomu nag mooy sës rikk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca aspect boo xamee ne mooy alxaqiqa almuhammadiya te booba lu dul yàlla newu fi ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam léegi alxaqiqa al muhammadiya dafa am jaani bu li ñaan wàllu goo xamee ne passif ak actif wala zahir ak baatin mooy baatin bi mooy tibbe ci yàlla zahir bi di jot li fi kon daa am loxo buy jël ak loxo buy joxe buy jottali wala dafa am kaw ak suuf jàppal ne nag suuf ga moom ngay jàppee al maqamul xidma rek kaw ga mooy la la la sës boromam loola ku dul yàlla mënu koo xam waaye la sës ca moom ba mën a jël jot li mindee fi kooku mooy eh, maqaamul xidma boobu moo sës rikk ci yoon saa salaam xanaa loolu mooy wasila wasila sax mhm. quelque part wasila la ndax luy intermédiaire la entre ñaari mbir mhm. waaye Euh, maqaama mi yonent euh, wàlli sax xamuñ ko mënuñoo xam xaqiqatu booba mm-hmm. ndax xaqiqatu nabi alayhi salaam kenn mënu koo xam loolu nag Sëriñ Tuubaa wax na ko nee na mm-hmm. liggéey bi ma koy liggéeyal ci baatin mm-hmm. ku dul maag moom xamu ko ku dul yàlla ak man ak moom ump na la fa baat nu ko waxee sax nee liggéey bi ma koy liggéeyal ci sama xol moom fa fa batinatun an jamihi an jamii l aalamin aw kama xaala kon muy loo xamee ne euh, bu dee nag ci liggéey bi mu liggéeyal yàlla ci zaahir ci yonente bi aleyhi salaatu salaam ci zaahir mooy euh, ci xalimaam nu mu ko waxee ti ca sa euh, wala xad karam naa bil madhi wa nasri sajaan suma misaana man surtout xaadimahu bil wa nadri wa nasmi bi nadmi wa nasri sajaan suma misaana koy liggéey ko yonent sallam ci xalimaam ci di ko tagg di ko màggal ci mboolem xeeti nu ñuy màggale ak a tagge ci ay xeeti mbind muy nasmu nazmu muy xasida ak nasru te loolu feeñ na ci salawaat yeeg yooyu ak mbooleem te ci anam goo xamee neen xidma boobu nag munta am te mbëggeel gu kawe jiitu gu mbëggeel goo xamee ne dangay ngay seey ci jëmmam ni yonent bi alayhi salaam seeyoo ci ci boromam ci bëgg yu boromam kon mbëggeel googu moo mën a jur xidma boobu day mel ne kon balaa jariñoo am faaw bëgg am ba noppi bëgg am mm-hmm. ndax yàlla sax wax na ne mm-hmm. in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni mm-hmm. kon ba ci topp yàlla dox jëm ci yàlla balaa mën a am da koy bëgg yuhbibkumullah <laughs> loo bëggut mënoo cee dox ba ci iraada gi sax dañuy sart bëgg goo bëgg sëriñ bi doo ko mën a liggéeyal doo ko mën a jariñ ci moom kon bëggeel googu xidma gi mooy eh, li koy jëmmal mooy li koy wane beneen bi lu mu liggéey yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy yeesal diineem ji kon lépp laaj ju ci sallam jëmmam liggéeyal ko ci jëmmam mooy ci xasida yeeg mbind yooyu ñu doon wax liggéeyal ko ci diineem ji mooy yeesal gi mhm. euh, ak wane waat diine ci jamono bu demee ba jamono diine niñ ko déggee day mujj nekk problème ci àdduna au lieu que muy nekk solution wala régler problème doomu aadama nit dana dem ba nu muy interpréter diine lu mu cay yokk nu mu koy xalaatee noo xamee ne léegi diine problème lay doon mu laaj kon ak yeesalaat mm-hmm. fexe mm-hmm. texte ak réalité yi diine mm. dëppoo ak lu mën a résoudre problème doomu aadama mm. mën a jële nit mm-hmm. min a zulumaati ila nuur ila nuur min a shaqawati ila mm. saada jëme ko jële ko ci texe di jëme ko ci texe mm-hmm. waaw mm-hmm. moo tax sëriñ bi daan wax eh, yaqulu eh, ahmadu ila saada yadxulu mala bil ilmi wal ibada bil ilmi wal ibada waaw loolu lépp ni mu yeesale diine ci xam-xam la ko teg seet fondement ngi diine nga xamee ne mooy li valable ci jamono ju ne ak waxtu ne mu gën ce insister gën ko jox importance ci jàngaleem diineem ndax ñëw na ci context boo xamee ne euh, liñ doon gën a jox mbir yitte mooy jël wird ak loolu moom mu xool ne l'importance mooy fexe ba alal maqaamaati indallahi fi hada zaman iskaanu tawxidi fi l fexe ba tubaab bi dafa ñëw ngir ray ngëm ngëm ci xol yi te moom la yonent saa sallam bàyyee mbootum diine mu war koo aar kon nañ fexe ba aar pas moo tax approche bi mu jël ci liggéeyal yeesal diine mooy dekkal tawxiid dëgg la jërëjëf moo tax gis nañ ci ay mbindam loo xamee ne lu mat ñaar fukki téere ak juróom wala lu am juróom-ñett ak yu ndaw yeeg yu mag yi yëpp ci tawxiid la ko def te loolu jàpp naa ne ci bëriwut ñu taalif lu toll noonu ci ci tawxiid dëgg la ndax Sanusi mi ñuy wax sax ñetti téere la ci def dëgg la waaye ñaar fukki téere ak lu teg nga bind ko ci mhm. kon loolu mooy wane ne yow yeesal dëgg la mhm. cosaanu diine mhm. Euh, mbirit boo ko dee yeesal da koy tàmbalee fa mu war a tàmbalee mooy yeesal diine gi ma bañ a euh, ëppal ci wàllu yeesal gi mhm. beneen tomb ndax bari na yeneen yum yum yeesal diine mhm. ci ci tawxiid dëgg la ba ci concept xidma bi sax mhm. mu indiwaat iraada alhimma al aaliya ay mufradaat yu bari yum indi yoo xamee ne ay principe la yoo xamee ne yu simple waaye bu ko jaam bi dundee ak fu mu mën di dund mm-hmm. yow yàlla la moom mm-hmm. seytaane mënatul dara ci yow mm-hmm. euh, keneen ku dul seytaane ka gën a mën a yàqit boo nekkoon ci ronam mën mënatul dara ndax sa xol yàllaa ko moom te yonent bi alayhi salaam waxoon na ne xol moo li am solo mooy moteur doomu adama bu baaxee léppam baax bu bonee lépp bon danañ danañ ci ñëwaat euh, bokk na ci li mu liggéeyal xidma bi mooy mhm. gannaaw bi mu yéesale diine mhm. moo euh, kon ma bàyyi ba ba nga ñëwaat rek ñu waaw waaw baax na jërëjëf <laughs> jërëjëf euh, sëñ euh, sëñ sëñ Sohaibou sëñ sëñ Abo yaakaar naa li nga indi yaatu na ci wàllu ko xidma mooy moom Serigne Touba ci boppam dafa mel nan la déggee woon xidma jëmmi xidma ci boppam mooy lan nan nga ñu ko mën a leerale ci ci luñ mën a dégg muy lu am solo sëñ Mamor dañuy delluwaat ba tey ci Serigne Touba ak xidma waaye bii moom maanaam al iraada bi mu tudd léegi maanaam sëriñ bi bi mu jógee daal euh, dëgmal boromam moom ci boppam nan la xidma ba agsi fii waaw ci ci ci ci ci ci résumé bu gàtt rek bu ko defee ñu wàcc ci taalibe incha allah jërëjëf euh, sëñ Mor jërëjëf sëñ Abo mhm. foofu rek ñu leeral ne xidma am na ñetti xeet mhm. liggéeyal yàlla am na ñetti xeet mhm. ba ci njëkk mooy liggéeyal yàlla liggéey bi jëm ci diineem bi ko ñaari mooy liggéeyal yàlla liggéey bi jëm ci mbooloo mi mm. ba ko ñettee mooy liggéeyal yàlla ci nitug yàlla mm. su dee liggéey bu liggéeyal yàlla bu liggéey bi jëm ci diineem mm. suñ delloo ci alxuraanu sunu moom la tuddee al jihaadu fi sabilillah mm-hmm. mooy jihaad ci yoon yàlla te mooy ki jël bakkanam ak àllam lépp jox ko yàlla mm-hmm. ngir yàlla fay ko ci aljanna soo liggéey mm-hmm. euh, nit nag bu xasee jaay mbir tey séentoo jot ci njëg day mel ne lam jaay moomatu ko te bu ñu xasee jaayante mel ne kon jaay na suñu bakkan suñu àll lépp yàlla li nga jaay nag ki nga ko jaay su ko soobee mu laaj la ko dëgg la kon bu soboon suñu ba mu laaj no bakkan yi mm-hmm. laaj no alal yi mm-hmm. te boo faaw dañ ko ko jox lu mel ne inna laaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum mi ko ci la jëm di nettali mm-hmm. ñu gis ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaabaam dañ leen laajoon seen bakkan ñoom ma war a xare yi ndax xare nga di ko dégg badar mm-hmm. uhud mm-hmm. xandax tabuk mu'ta bani mm-hmm. mustalik ila axiri yi yu bari yoo xam ne moo ko daa jiite ànd ko saxaabaam waaye ñu bakkani saxaaba yu bare bare bare bare des ca waaye itam ñoo ñu rotee bakkani yéefar yu bare bare lépp ngir yëkkati kàddu lislaam bu suufeel baatu kéefar bu fekkente nag day jamono jox ne laajuñ nu bakkan mel ni suñ jamono ji lu tee nga xam yàllaa ko nga bàyyee ko ko mm-hmm. kon lépp luy del ci sa jëmm mm-hmm. moo xam sa xam-xam la mm-hmm. moo xam sa dara jala moo xam sa xel mu rafet la lu ma doon lépp da koy delloo ci yàlla ndax ko ko da nga ko jaay su dee kii dexo noonu mi ngi jihaar ci yoonu yàlla ci bakkanam su dee àll ki nga xam ne àllam lépp da ko delloo ci yàlla bu fekkee ba xare di am la ka jël di di ko def ci luy tax xare ba sotti luy tax mu àntu ma ngay jihaar ci yoon yàlla su loolu amutoon naka way delloona nag ci yàlla nga xam ne ca tabax ay jàkkaak jumaa mm. wala tabax taxawal ay daar wala tax ñuy jàng ñuy jàngale yëpp mm. ba tey mi ngi jaxaat ci yàlla mm. la xasara jooju nga junj léegi ba mooy tegtale loola yàlla jënd nangu naa jënd bakkane way way way uh, way gëm yi ko ko jaay mm-hmm. ngir ëllëg mu fay leen aljaan ci sàttub mm-hmm. ñu koy xeexal ci aw yoonam dëgg la di ca nango joxe seen bakkan mm-hmm. di ca rootale bakkan dëgg la uh, mooy nag ñor na yàlla ñor goo xam ne ko ci lislaam ndax suñu demee ci tawraat li Injiil yëpp mhm. di teer yu wàccoon ci yeneen yonent dañ mhm. fekk muy waxtaan lu soxal jënd gi muy jënd ci ay jaamu a anam gi mhm. soo waxtoo pay jote da xam ne am jëflante ko ku mat a ndax da nga ci ngañaal xam ngañaa fit ko tamit alfawsul azim yow man awfa kon ci tënk lo bu njëkk bi bu dee bu ñaareel bi liggéeyal yàlla gu liggéey bi juñ ci mbooloo mi mooy lépp loo xam nit da koy jariñoo yoon wi kat ñëpp ko bokk daa naqari nga defar ko ba mu neex a jaar mm-hmm. da nga bënn forage ngir ñëpp di ca naan da nga tabax hôpital ngir ñëpp di ca faju mm-hmm. da nga samp daara ngir ñëpp di ca jàng mm-hmm. wala lépp loo def ngir ñëpp loolu la ñu tuddee ci alxuraan sunna al ihsan loolu su ma naan inna laaha yaamuru bil adli wal ihsaan wa itaa'i zil qurba yàlla dafay e, digle maandu waaye dafay digle itam ihsaan maandu mooy képp koo jëflanteel nga jox ko xàq ba mu sëkk ba doo ko tooñ dara lu néew néew mhm. soo ko joxee xàqam ba mat nag bëgguñ nga jox duñu bëgg dolli ko ci leen doxoon do xàqam mhm. yàq baax te yàlla dool lañ ko dolli te do xàqam loolu mu tudd ihsaan dëgg la mhm. suñu boo ne diggee ci yiw yu màgg màgg lil ladina ahsanu husna wa ziyaada wala yarqujuhum xat wala wala dilla wala ak sab jantu nang eh, ñi nga xam ñoo ko jëfal ci ay jaamam ndax ihsaan mooy jëfal yàlla ci ay jaamam mooy ñi ko jëfal ci ay jaamam yàlla daa leen fay aljana ak leneen ndool la raw ajjana alxusna mooy ajjana ziyaada mooy lu raw ajjana mm-hmm. mooy lan taw féexale gi mu ni taw féexale bu ñu tàbbee ajjana ba noppi gis gañ koy gis mm-hmm. jàkkaarloo tax ne gis yàlla moo daqal aljana dëgg la mooy nag ëllëg ñi weddi woon yàlla ñi daa jëf lu ñaaw suñuy tiite ka jàq ba seen xare ko di njëkk ñoom du ca bokk mm-hmm. ñu tam fa la sax ba faaw loolu suñu tuwi di ju naan wa qiila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari wa kaabadal waral jawaa wal xumma naadaa munaadin ayna ahlul xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain fa yu'maruuna lil jinaani musrain bi ay yuqaala lahum umdul janna bi xayri fitna du xayri mihna nee na wax ne ne ëllëg bu ñu jëlee seral gàcc ko ci kaw jeex na bu ñëpp maasi jàq ñëpp maasi tiit hmm. danam yéene kat boote ci kaw ne ana ñi daa liggéeyal julli ñi te yàlla tax neen ñu ne ko ñu ngi nii hmm. mu ne yéen moom na yeeg njàqar yeeg hmm. tartar yeeg yëpp bokk leen ci yéen moom dem leen dem leen ngeen tàbbi aljanna mm-hmm. mel ni sunu borom balaa àtte jaam ñi day njëkk a jukki ñooña ahlul xidma mm-hmm. tàbbal na aji ba noppi door a àtte jaam ñi loolu lu màgg màgg la te ci xidma rek lañu lañu wax lu mel noonu dëgg la bu dee sëñ bi moom bu dee mujj bi nag mooy mooy yàlla ci nituk yàlla mm-hmm. mooy ni ni muri jëflanteeg sëñ Tuubaa nga ne man mooy ni sëñ Tuubaa jëflanteeg bi sallallahu alayhi wasallam sëñ na ko léegi uh-huh. xam nga jaayante gannaaw bu sun boom digal yoon saa sam mu woote mhm. woote lislaam mhm. bañ gëm ko ba julli ñu bari la ko doon digal jaayante ne ko balaa sun boom nangu seen gëm dañ jaayante yow mhm. bañ tege seen ndox ci sa kaw loxo jaayante yow sun boom nangu na jaayante waxam ne yàlla gërëm na way jaayante keroog bañ jaayante yow ca roon garab ga sun boom nangu na seen jaayante googee ba ca topp mooy bëgg wax na ko léegi mooy nga bëgg ko bëggeel néew bu kawe anda mhm. lay gënal sa jëmmi bopp gënal la sa ñaari waajur gënal la sa doom joojur gënal ci nit ñëpp xanaa loolu mooy ma mahabati al muxtaari sayidana waaw mbir maxaani yi jooju sëñ bi doon wax ci loolu sëñ Tuubaa wax wax na mënatuma bëgg ak njabar mënatuma bëgg ay koom ngir bëgg gi ma bëgg yoon sax daf fees dal xal ba dara xajatu ca wax sax lu gën a kawe loolu mm-hmm. nga xam dafa jël sax deretam boppam moom ak njabootuñ yëpp def ko ak njot yoon bi saas la dëgg la <laughs> dami wa ahli wa awlaadil fidaa ulhu abdan xanibul muskan li sanada dala waxaat ne mm-hmm. bëgg naa ko bëgg goo xam su ma ko gisoon muy dox mm-hmm. ba yëkkati tànkam nar koo jog ci ak dégg wala fettu giit du ma toppale dégg du ma toppale fettu waaye sama lex laa ko ci laala mu jaa ci lex ba jàll def naa kenn kaak foofu ca bëgg amut wallaay wallaay wallaay xaddi wiqaayatun li rajulin mutaba mhm. min shawkatin aw ma yudahil aqraba wallaay wallaay eh, xidma boobu nga wax nag mhm. wala boog waa nga xam ne mhm. eh, muy iraada gi dëgg la dafa ñëwoon ngir jaamu boroomam waaye itam bi nga xamee ne ñëw na te war a nekk cheikhul murabbi eh, nekkoon tàmbali ci jàngale alquran ak jàngale xam-xam mm-hmm. wuutu sëñ Mor sëñ Mor Asel ci daaraam mm-hmm. bi wutoo ci daara jàngale am at nag te mm-hmm. ci biir at moom sax def na ci tukki boo xam ne bu yaatu la ci biir réew mi ak bitim réew muy Sénégal ak gànnaar war boroom xam-xam yëpp ci lay waan fajultu baynal ulama wal awliya bañ ci amee ab diir nan la jot ndigal ci boromam ci ne ko rabbi asaabi bil himmati tarbiya sa mbooloo ci pëstéef Eh, foofa nag la la waxee noo xam ju siiw jooju nag képp ku fi njàng kese indi woon mën ngaa seeti foo jàng ji mhm. koo xam ne li ma tax a jóg mën ma la tax a jóg nag mhm. mën ngaa toog mhm. kon foofu la iraada tàmbalee dëgg la foofu sax bëgg naa fi leeral bu gën a yaatu ndax eh, léeg-léeg nga dégg ci lenn ci waxkat yi ñuy jàpp ne xan ya sëriñ bi dafa bàyyi woon xam-xam bi wala dafa bàyyi woon jàngaleem xam-xam mi mm-hmm. léeg-léeg sax euh, nga dégg ko naan euh, sëriñ bi dafa tasoon daara ji jëm ci yeneen mm-hmm. euh, loolu nan lañ ko mën a déggee ndax sëriñ bi dafa bàyyi woon jàngale mi complètement wala dafa indi leneen dolli ci xam-xam bi de tërbiya dafa ñëw yokk ci aha waxtoo ko bàyyi jàngale mm-hmm. doon na jàngale sampi daara ndax bi mu waxee wax jooju ba ba ñuy dem dem ñiy toog toog te bu nekkee gànnaar ak bi nekk Jolof yëpp ñoom daa taxool daal jàngal téere mi taalif waaye teew mu sampi daar samp sëñ Abdou Rahman Lo mu jàngale alxuraan mhm. daa doon alimul xabiir samp maam Cerno mu jàngale xam-xam mhm. samp itam sëñ sëñ sëñ Mbàkke Buso mu jàngale xam-xam mhm. ñaari mu samp sëñ Moodu Awa Njaay mu jàngale alxuraan samp sëñ Moodu Lamin euh, Dagana mu jàngale xam-xam moo moo ko sëñ Mat Dem ak ñu ñëpp nga xam ne ay dafa mi ngi jàngal waaye samp nay daara kon dafay tarbiya dafa ñuy yokk ca waaye tax koo bàyyi jàngale kon sëñ Mor Anta Sali da koo bàyyil daara mu indi ay daara mu indi ay daara waaw nga samp ay daara yu bëree bëri ah, bi nga xamee ne nag wax na waxam jooju kon ci la tàmbalee nag iraada yow mhm. mhm. nga xam da ngay jaayante kon da ngay joxe sa bopp mhm. nangoo tegu fi ñu la teg mooy yoon wi la jaar ngir àggale ci fa nga àggale ci yàlla nga nangoo tegu ci yoon woowu loolu nag nga xam ne bi muy door tàmbali nga xam ne daan sàkk barab yoo xam ne yu wéet lay doon ngir lim bëgg a def ci moom mën ko def ci moom ndax Euh, nit ki mënta jaxasoo ak ñu bokkul pas-pas ba noppi nga bëgg def ci pas-pas bu bees mhm. ci la gis nag ci la dem ba sori mbooloo mi mhm. Mbàkke Kajoor la tàmbalee waaye ba jafe-jafe itam mu ñëw Mbàkke Bawol mhm. ba ni mu sañ ci Daaru Salaam bi ñuy ñëw Tuubaa Mbàkke bari lépp mooy bëgg barab bu wéet boo xam ne dafay mën a wéet ba li mu dafa ci formé formé ndax na xam naa ne jot gii donte mos am jot waaye li on jot ngir mën a liggéey lii dana ko ñàkki bëgg fexe ba forme cadre yoo xam su demee ba ñàkk jot gi ñooñu mën ko caa wut dëgg la day mel ni waajaloon na dem gi waaw ci la fa ci la former cadre yëpp na sëñ Abdourahmane Lo ñoom mm-hmm. sëñ Mbacke Bousso mm-hmm. euh, euh, Cheikh Ibra Fall mm-hmm. cadre yi nga xam daal ñëpp ñoom la samp ba bu ñu ci géej gi dara yàquwut liggéey baa ngi dox loolu formation boobu ci ko amee ci diggante Daaru Salaam ak Touba ak Mbacke Bari doon Mbacke Bari mu ñetti weer xëy na fa am yàggut waaye li ëpp ci liggéey bi Daaru Salaam ak Touba la daasa am na fa juróomi at Touba juróom-ñaari at. ci la nag eh, eh, tàllal mbir mi dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. iraada googu nag. Mm-hmm. da ko wutal na ay ponk yoo xam ne ba tey xidma day tàbbi ci biir. dëgg la nga xam ne juróom-ñaari ponk mooy juróom-ñaari ponki xidma eh, iraada. iraada muy ban xam ne balaa nit ki mm-hmm. iraadaam dëgg mooy taalibam dëggu. faa dafay làmboo juróom-ñaari. saatu yooyu. ba ci njëkk mooy xidma bi ñu tudd léegi. bay day nangoo liggéeyal yàlla. ngir yàlla jaar ko ci sëriñ bii ko booleel te jëm yàlla dong tax mm-hmm. awwalaxal xidmatu li cheikhin nasih mm-hmm. yow ci baax xataa dem fasih mm-hmm. ba ko ñaaree nga mooy nga bàyyi gaaral ak diingat diingat mooy nga laaj mat waxi sëriñ bi mbaa ay jëfam di seet loo ci jàpp loo bàyyi di seet loo ci rafetlu ak loo ci ñaawlu te loolu néew nañu ci mucc ci ñun seet ci li sëriñ bi wax mbaa lim def loo ci rafetlu ak loo ci ñaawlu day mel ne ci ci melokaani muri sadi sax ma ngi ko fay waxaat watal ko ihtiraari mutu la xan gaaral gana mooy nga tabal mm. cee baat boole ci sëñ bi wax nanga wala wutoon def mm-hmm. def barab sànga wala yu mel noonu mm-hmm. xam naa sëñ bi nanga gaa yi ko ci dugal rek yu mel noonu li fekk bàyyi ko na woon doon ko muri da nga ko bàyyi ci sax bàyyi ko ci baatin dëgg la mm-hmm. loolu xam ne wa thani tarku li'tiradi zahira wa baatinan ba yakuna tahira dëgg la ko ñetteel mooy faw fardu ayn mooy farata jox ne kenn mënu la caa wutu kon yaa ko defal sa bopp mm-hmm. kenn mën la wutu julli la tisbaar mm-hmm, déedéet kenn mën la wutu waral ramadan ak ya demee ni ñoom mm-hmm. loolu la ñu tudde fardu kifaaya xam ko nag xam nag lay lay say faraid kifaaya nga xam ko lépp ba xam noo koy def xam ba xam noo koy defere xam googu mooy ñetteelu sart ci sarti iraada dëgg la iraada sadiqa ñeenteel bi waaw thaalisuha taallumul furudi al mutaayinat bi tafridi ba ko ñeenteel mooy faaw da ngay jébbalu jébbalu faaw nga am kilifa goo jaayanteel mhm. mu naa la defal nga def mu naa la bàyyil nga bàyyi tanga nga rafet njort ci moom mhm. rafet njort ga mooy tax nga mën a toppi ndigalam bàyyi tereem te mooy tax nga am ngërëmal yàlla mhm. soo rafet njort ci moom kii nga rafet njort ci mënu ko topp ko rafet njort mënu ko topp ndax mooy war sax gaaral ak dingan mooy yàq rafet njort la dëgg la dëgg la ah, moo moo la wax ne raabihu hastislaamukum bi xusni zannin fa suu zanni muddil xasni ba ko juróomeel da ngay aju ci mu aju gu wér mhm. boobu sax xam naa boo ca taxawee tuuti mu mel na kon mhm. léeg-léeg nga gis murid bi ne man de sëñ Tuubaa rek mooy sama sëriñ waa xam nga loolu ko kon jaayante mhm. cosaan la ci naa ko léegi yén saasam bi nga xam ne woote na ba lislaam dëgër mbooloo mi bari la ko doon la ko doon sant jaayante na ko ah. balaa suñu nangu seen ngam dañu jaayante gaw dëgg la jaayante googu na moom lañ tur in tur yi na jébbalu rek ah, mooy ma jaayante door a a bokk <laughs> kon yoon jaayante ci la bokk li fay jaayante goo <laughs> bokkut bokk la ba ko juróomeel mooy mooy aju. aju aju gu wér. Mm-hmm. aju mooy lan. xam nga sëñ bi néew na lum naa samay taalibe sama jël lépp li mu jëf nag mooy ñi aju mooy am taalliquna bi ya. Mm-hmm. taalluq nag. Mm-hmm. mel na ma nga mas na ko laaj sëñ ma bañ Njaay sëñ bañ Joxu Jabal la. ne Mbàkke bëggoon nañu ak leer ci baatu taalluq. mu ne ko laaj nga lu ma a laaj wool fere yi. su ma saan wax lu yitteel day woote ngir ñëpp bëgg ñëpp dégg ngir ñëpp jariñoo ko. ba wootee mu ne ko taalluq te mooy aju mi ngi mel ni yow mu sol saw dàll di dox fi barab ba am loo joge loo tax ca daal te bañ koo kël ngëj tax tama ne nekk dàll wa ca nekk waay ba xam nga su fekkee da ngaa joggi lu rëy mu tax ci saw dàll lu mel na xoox maa nga bu wóogut wala daal lu rëy da lu rëy rek bu mu tax ci mhm. ba tóoj sa tànk mhm. soo doxee ñaari jéego dañu nooy def da ngay tax dindi ko sànni loolu tax da ko mhm. kël ngëj moo tax waaw mais da ko kël suñ toogee jotaay bi yàgg ñu naan am na looy xeeñ mhm. suñ seetee gisuñ ko dañuy wax ne nañ seet dàll yi dëgg la buñ seet dàll yi dàll wuñ ko fekk dañuy génn moom xeet ko ci biti ba mu seet delloosi dàll wa delloosi ko <laughs> mooy dafa mënta nekk dàll ci nekkuwaay ba mu ne su mu cee ñaar yéen fa dàlloo teeloolee dafa teew daan loolu mooy aju dëgg la suñ mbay jaxate mënu gën a leeral mhm. euh, kon xam nga lañ koy déggoon mooy takkook sëriñ bi takkook sëriñ bi mhm. nag tekkul fu ne nga ne fa mhm. la muy tekk mooy foo nekk na nga fa nekk ndigalam ak loo ko sori sori dëgg la la muy koy def la muy tere ko bàyyi na mbëkkuri mel nga mel na mhm. bàyyi ko sa mbir xëy na mooy lu mel ne la mu waxoon euh, sëriñ Modou Awa Balla ak sëriñ Cheikh Awa Balla bari borom daaru Muxti yebalee waaw mu ne leen li ma ne ko ci ne foo mën a ne yaa ki ne fi man ko ci newul nag jotewu ma ak yow dara doonte yaa ngi sama bunt bi sëriñ ko aw ndigalam yaa nekk fi wonagam mhm. ne fi xolam ab sëriñ koy mooy ndigal sëfu ko te donte yaa ngi fi poojam mhm. tey mooy ndigalam mhm. seenu diggante fi su ndar loolu kon moyu ko la ilaha illallah te donte yaa nga fa manding tey jëfi ndigalam xamal ni yéen a ngay riisoo yàlla seere allahu akbar <laughs> kon jege ko sori ko kon du ci jëmm waaye ci doxin la ak melokaan dëgg la dëgg la loolu may taalux man na doon aju gu wér dëgg la goo du ànd ak sàkk ak deng deng te loolu xaamisuha taalluqun bila marad mhm. xalbin bi shakkin aw tatatubin arad dëgg la aju googu daana ko misaal ci saxaar itam da mhm. daa wax ne bu leen jaawale ñaar ndax niroo na te wuute mhm. mooy necc ak saxaar ak nefi ak saxaar ne ci ak saxaar ak nefi ak saxaar lu leen wutale necc ak saxaar mooy ka dem ca gaar ba dugg bi dagg bii dugg ci saxaar gi toog dugg ci saxaar gi kon ci saxaar gi fu mu dem dana ko fa yóbbu dëgg la ne fi ak saxaar na mooy yaa ngi ci gaar bi saxaar gaa ngi ci gaar bi waaye duggoo <laughs> su demee bàyyi la fa wallahi ndeysaan kon mooy kon da ngeen ci biir sëriñ bi da ngeen ne ci biiram dëgg la euh, mhm. ba ko juróom benneel mooy bëgg mhm. gi ñu tudd léegi mooy faaw da nga koy bëgg lool ba mu mhm. gënal la ñëpp saadisuha xubbun yaquudu lin jaal muraadihi fawxu munaahu bin fial dëgg la ba ko juróom ñaareel mooy lépp looy sàkko ci yàlla da nga ko sàkko ci barke ndax yàlla mooy sa buntu ci yàlla mm-hmm. te alxuraan newoon na a buyuuta min abwaabihaa mm-hmm. Mm-hmm. gannaaw mooy sa buntu ci yàlla kon lépp loo sàkku ci yàlla na nga ko jaar ci na nga ko jaar ci buntu bi mooy booy dugg ci néeg jaaral ci buntu bi saabiuha allaa yaruma faida bi gayrihi man ata bil maida dëgg la fa haati atat muxaddamaati li taalibil ismati min xumaati kon yooyu juróom-ñaar mooy juróom-ñaar wos nga xam ci la xidma di tege dëgg la loolu mën a wér jërëjëf mm. eh, jërëjëf sëriñ bi yaakaar Euh, dina gën a tax mbokk yi nga xam ne itam euh, dañuy jóg ngir bëgg a xidmal sëriñ bi rawatina ñi nga xam ne dañuy bëgg a def te xam euh, ndax sëriñ bi moom faaw nga liggéeyal ko xam-xam nu cee ñàkk mi ngi doon wax sax ni jaamu yàlla gu tegool ci xam-xam wala nit ki buy jëf te tegu ko ci xam-xam nee na ay jëfam day tasaaroo est-ce que lu amilin bila hilmin yura jooju fasahibu la haba inutira mu mel ne sëñ sëñ Sohaybou sëñ Mamour ni nga ko leerale am na solo lool yaakaar naa ni mbokk yu bëri danañ ci danañ ci gën a mën a jariñu Eh, sëñ son yi bu léegi nag dañuy dama lay gunge rek fi nga tolloon waaye sëriñ tubaa ak xidma waaye ma jël ñaari waxi sëriñ tubaa eh, bu njëkk bi mooy def ci boole lu bari tuubaa li habdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati mu mel ne tudd na fa nammeel gi sëriñ eh, sëriñ Mamoor doon wax léegi tudd na fa itam dëggal ci li ngay wut tudd na fa itam liggéey tudd na fa itam bëgg yi nga xam ne sëñ Mamoor toj na ko léegi waaye mu mel ne xidma googu da koo jël beraat ko feneen loola sax maa ngi jàng eh, ci ci ci jamonoy Touba wala Mbacke Bari muy xafistuma si na xanit dafatiri jooju fala takun xan xidmati bi fatiri sëñ tubaane na suñu borom defal na ma loo xam ne doo ko fekk ci kaw yi loolu nag xëy na mbirum mbirum boppam la kon boo leen taay ci di ma liggéeyal liggéey boobu sëriñ Touba di wax ne defal leen ma ko boo leen ci tàyyi ana ban façon liggéey la waaw ah, jërëjëf mhm. euh, ci xidmatu xam ne moom la seq ak yonante bi alayhi salaatu salaam ñu waxoon ci xidma bi mu ko liggéeyal ci jëmmam mm-hmm. ak bi ko liggéeyal ci diineem ji ak bi mu ko liggéeyal ci ummaam bi mm-hmm. boobu lañ waxutoon boo ñu demee ci ay mbindam danañ gis yu baree bari it luy firndeel mm-hmm. xidma bu xidma ci umma bi ci shafaa ci dàkkur leen ay ay tiis yu naroon a wàcc seen kaw aar leen euh, teg leen ci yoon bañ mën a texee tey ak ëllëg mm-hmm. kon loolu mooy xidma bi sëriñ bi doon defal yonante bi alayhi salaatu wasalaam moom euh, mu des nag xidma bi taalibe bi mm-hmm. sëriñ bi mm-hmm. waaw waaw acca acca acca bismillah waaw acca euh, waaw kay kon euh, jërëjëf sëñ sëñ sëñ Sohibou Euh, bu ko defee xam naa mu jekkal mikorom mi ngi mi ngi tolloon fu am solo mooy mi ngi jeexal léegi euh, ci xidma bi nga xam ne moom la euh, sëriñ bi doon defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy xidma bu yaatu boo xam ne mboolem liggéey bi mu doon def def ko ci digganteem ak yonente bi Eh, def ko itam ci digganteem ak eh, boromam sallallahu alayhi eh, radi boromam subhanahu wa taala jaare ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xidma bi nga xam ne itam Serigne Touba defal na ko jaamam jaam ñi te loolu bokk na ci dem gi ci géej gi tukki bi fi mu jaar ci coono yi ak li mu daj lépp lépp xidma rek mooy li ko waraloon mu toll nag ci buntu bu am solo mooy ginnaaw xidma bi nga xam ne Serigne Touba defal na ko yonente bi defal ko boromam defal ko itam taalibe yi taalibe bi moom ban xidma la war a defal sëriñ bi mu mel ne sëriñ bi foofu nga tolloon waaw xidma bi nga xamee ne beneen bi mooy mhm. taalibe bu ne Sëriñ Tuubaa mooy war a nekk sa royuwaay mhm. moo war a nekk sa euh, ki ngay xoolaat mhm. ndax moom ni mu digganteem ak yonente bi alayhi ni mu jaaroon rek ñu nit loolu moo ñu war ci diggante ak moom donte ne ñaari maqama yi wuute nañ ndax moom ak mat la ñun ak doyadi lañ moom ak leer la ñun ak lëndam lañ waaye leer gi ñuy jéem a euh, niitoo ci moom mi ngi mel ne nit ak takk ndeeram Euh, dañuy jéem a roy ci moom mbëggeel ga mu bëggoon yonte bi dañuy jéem a roy ci moom liggéey bi mu doon liggéey yonte bi aleyhi dañuy jéem a roy ci moom seey gi mu seeyoon ci yonte bi salaam mhm. lu ne ñu jéem ko def ci moom it mhm. ndax mooy suñu bund ci yonte bi salaam sëñ wax na ko léegi mhm. bu ko defee liñ koy liggéeyale bi ci jiitu mooy sart euh, bi mooy bëgg ko moom ba noppi bëgg sëriñ bëgg ba jeex ci takk ci moom euh, sëñ Muntaxa wax na ko nee nañu jaamu yàlla liggéeyal ko sëriñ bi mm-hmm. liggéeyal sëriñ bi jaamoo ko yàlla est-ce que <laughs> muy wax ju xóota xóot nag yoo xamee ne jara loolu tem la jara mm-hmm. euh, jara firiñ ci jara firi lool tem la day yaatu bu ko defee sëñ Muntaxa it beneen wax bu am solo bu wax ne ñu mm-hmm. ci ni ñuy liggéeyal sëñ baa mooy liggéey bi nañ ci jiital liggéey ko ci sunu bopp nee na fexe ba suñu bopp mel ni. ko sëñ bi nu yàlloo sëñ bi. ndax sëñ bi dafa leer lool kawe lool sell lool. est-ce que buñ taqee ripp nag. Eh, ñàkk yor jikko yi yi méngoog sëriñ bi. Mhm. mel ne ku ku taq. di ñëw mhm. ci xadra bu bu sell. bu sell. Mhm. loolu yaakaar naa ne duñ la may nga dugg ca buntu ba. te am na fa ko sëriñ bi waxee. ci ni sëriñ si la waxee nee yàlla dafa laab sell. kon ku bëgg la fa moom mhm. da war a laab mhm. kon fexe ba liggéeyal sëriñ bi bi ci sa bopp ba mel ni nga war a mel mhm. jàpp naa ne mooy liggéey bi jiitu sëñ Tuba sax doon am na mangum waxoon ne ko boo leen ma xasloo mooy di wax ne fi man nga jógee te meloo ni ma bëgg wala ni ma mel léegi kon bu ko defee euh, sëriñ bi du ànd ak lu taq lu donte ne yërmandeem nag moom ak li koy yàlla yi liggéeyloo moom euh, fépp rek dana fa jéem a wàcc ba muccal ñëpp waaye ñunit nit gannaaw ñu mbaalee bañ bokk ci mbaal gi mhm. ñu jéem a nag tàmbali di yéeg di ko jege ji ci kem nuñ liggéeyale suñu bopp mhm. euh, sëriñ bi ci suñu bopp mhm. ci def ci jikko yu rafet def ci xam-xam def ci bëgg yàlla def ci bëgg yonante bi alayhi salaatu wasalaam def ci bëgg ko moom seey takk ci moom bu ko defee ci la ñuy mën nag yàlloo toog nekk ci xadraam mën am man koo liggéeyee liggéey bi mu bëgg. dëgg la kon liggéey ko ci tàmbale ko ci suñu bopp. Mhm. bu ñaareel bi. Mhm. ni ko sëñ Mamour waxee léegi. Mhm. ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna. gannaaw boo boo boo xamee ne sëriñ bi mooy sa bunt ci yàlla. te yàlla moom sa lépp. kon sa alal sëñ bee ko moom. sa temps sëñ bee ko moom. sa bakkan sëriñ bee moom. loolu lépp nag. da nga koo war sëriñ bi. waroo koo dugalati ci lu neexul sëriñ bi. ni nga jébalee sa bopp rek. waaw ni nga léegi jébalee sa bopp. Mhm. fu sëriñ bi soxlaa. Mhm. sa ñaq. Mhm. bu la jëkkee kenn jiir. fu sëriñ bi soxlaa sa alal. bu ko moomati dara. dëgg la. maya joxe ko misaal ci sama sëriñ sëriñ Saliou. moom. luy wane xidma boobu. ak liggéey bi ci liggéeyal yàlla. moom amutoon alal alal moomu ko woon mhm. alalam mhm. bali muy bay sax mhm. lenn loo xamee ne war naa ñëw ci boppam walla njabootam walla sax donga yi ko liggéey warut a dellu ci ñoom lépp dafa war a ñëw mu jël ko dajale jaay ko jox ko ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa te loolu ba mbay ma njëkk a bay ba mbay mi mujj a mbay lenn lu dellu ci moom amul dégg naa sax ci kàddoom mu daan wax naan boo leen xool nawet bu nangu ak bu nanguwul Eh, waaw liggéey bi rek moo moo ñu ci war. <laughs> wallaay waaw <laughs> kon. Mhm. murit mhm. loolu exemple la ci ne. murit alalam moomu ko yàllaa moom. dëgg la te ci sëñ bi la koy jaaree. sëriñ bi la mooy mooy buntu bi. Mhm. Euh, euh, temps moomu ko yàllaa xalaatam moomu ko yàllaa ko moom. alalam moomu ko yàllaa ko daraam moomu ko lépp yàlla moom. dëgg la loolu nag boo demee ba xam ne yow. loo amati ci sa bopp dañ la koo sarax rek. jàpp naa ne. Mhm. sa temps bépp kon ko moom. dëgg la loolu nag. Mhm. Euh, bi ko murit yi mhm. gëmee. da daan gis ci misaal rek. Baay Faal. Cheikh Ibra. dëgg la nga xamee ne euh, na. mooy misaal ci himmal aaliya. ba muy indi ak jébbuloom lam daan waxanteeg sëriñ bi. wane na ci kawe yitte. boo demoon ci njaboot seen seenu njaboot. Mhm. seen kër. Mhm. dañuy jël lañ am lépp joxe ko. seen kër. Mhm. fekk leen ñu dëkk ci kër yu modeste. dëgg la sëñ Amdi Khady Fall. misaal la ci. dëgg la. li muy liggéeyal Serigne Touba ci université bi nga xamee ne. ñëpp gis nañ teg nañ seen bët. dëgg la. waaye bañ dama faa demoon eh, ñuy laajte la liggéey ba mu ne. dañ ko faa diggoon ñaari tabax. waaye bi sëñ Sidi Muxtaar eh, nelawee mhm. mu ne balaa mën a defaat ci liggéey boobu day joxe addiyaam ba noppi door a mën a tàmbali ci liggéey bi. est-ce <laughs> nga xamee ne mhm. moom liñ koy liggéey doon sëkk addiya dëgg la waaye jàpp na ne nag liggéey moom leneen la dëgg la moom ci yow la ndax sa compte la rek koy mhm. defal yàlla dëgg la sa addiya da ngaa war a ñëwaat liggéey eh, indiwaat noonu la ab taalibe war a mel ci dëgg la moomu dara dëgg la moomu dara nag. Mhm. du ne du mhm. ñaq. dëgg la doo ne ne bëggoo waaye la nga moom. saa su ko mhm. yàlla soxlaa rek. dëgg la maa ngi maa ngi dégg sax ci sëriñ Cheikh Fall Mbawar muy wax ne eh, boo ñëwee ci sëriñ bi ne ko jébbal naa la sama bopp àddina ak alaaxira wëlbati ko am leneen loo bëggaat yaa ngi war say kàddu. parce que loolu mooy lu wér a wér ko defee euh, murit bi. gannaaw bi mu jëlee léppam jox ko yàlla. jaare ko ci sëriñ bi. fu mu toll it day xencu bëggu sëriñ bëggu sëriñ sëriñ Touba mm-hmm. bàyyil nañu fi ay naal yoo xamee ne mm-hmm. ay ay ndénkaan mm-hmm. yoo xamee ne wane ne foofu la liggéey bëri jëm muy jumaa ji ak daara juñ ko war a tabaxal ak uh, aju màkka ndénkaan yooyu bi mu fi jógee njabootam gépp lañ jël seen yitte def ko ci liggéey boobu dëgg dara ko ci sëñ Mourou Moustapha la mu liggéey pour jumaa ji mën a am démarche yam ca def démarche administrative ak la aju ca wàllu contrat yaag la jafe-jafe yi ci am yëpp ak lam laaj ci ay sacrifice ak alal lépp def na ko dëgg la yemuñ ca condition yi ko tegal kii di mu taxawal raay bi pour matériel bi mën a ci dëkk bi mhm. waaye loolu lépp gisuñ ko mhm. par rapport yitte ju ji jiñ am ci liggéeyal sëñ Tuubaa jafe-jafe ju ñu mën a teg seen kanam lu mu metti metti jaral na leen ko ñu mën a liggéey sëñ Tuubaa dëgg la moo tax ñu def fi raay bi mhm. loolu ci xidma la amee mhm. ba mu mën a song mhm. jumaa ji tey mu doon ab bijou boo xamee ne ku ko xool xam ne lii dëgg-dëgg mooy liggéeyal yàlla dëgg la waaye bi liggéey boobu àggee gis nga it sëñ Muntaxa mhm. lii mu sóobuwaat dëgg la nga xamee ne wasiya la mhm. ab ndénkaane bu fi sëñ Tuubaa bàyyi woon dëgg la ñii yàlla dogal ñu sottalee mhm. beneen phase bu yoonu murid war a mën a ibbiwaat incha allah ñu ngi ñaan yàlla bàyyi ko fi ba loolu mën am day day mel ni oto bu départ la rek jëm ci dëkk ko dawal ba fañ la war a yemale keneen jël waaye bi yëf yi moom benn daamar gi la <laughs> bu ko defee mbooleem kon hmm. ci xidma boobu ñoom hmm. njabootu sëñ Tuubaa gi dëgg la wuutu sëñ Tuubaa ci liggéeyal hmm. sëñ bi doon ni nga ko waxee comme chauffeur boo xamee ne sëñ bee ko embauché mu di ko liggéeyaloo di ko liggéeyal parce que seen yitte yëpp tamit doon ci amal liggéey boobu uh-huh. mu sotti dëgg la ñuy mobiliser taalibe yi di leen soññi ci ñuy joxe seenu ñaq joxe seen alal joxe seen lépp ci liggéeyal sëñ Tuubaa mën a am la bu ko defee nag mhm. sëriñ bi moom dafa ibbi buntu mhm. liggéey yëpp dëgg la ñu bari dañuy jàpp ne mhm. bu njëkk nañ doon liggéeyale sëñ bi ci ay tool la woon ndax tool yi la dem mbay ci biir liggéey boobu ñu fay defee danañ fa yar nit ki yar gi sax ci ci xidma bi la dëgg la ndax mooy li doon wax léegi ci liggéeyal sëñ bi ci sa defar sa bopp defar sa bopp sëñ bi sëriñ bi lay defar tamit liggéeyal sëñ bi ci yow ci defar la loolu ci tool yi lañ ko daan defee. dëgg la dëgg la boole ci. Mm-hmm. production. Mm-hmm. Euh, bi ñu fa daan def ci wàllu mm-hmm. euh, mbay. loolu it buñ lañ fay jëlee. daawuñ ko jëfandikoo dañ ko daan indi. indi moo sottal tey liggéey bi kon mbay la. ab pàcc buñ daan liggéeyale sëñ Tuubaa la. waaye jamono ni mu ibbikoo tey. ak modernité. jàpp naa ne. majaalaat domaine yi ñu mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa mhm. domaine yu ne gàññi la mhm. foofu sax laa bëgg ñëw fi ci tomb bu mujj bi eh, xam naa ni da ngay teg sa baaraam ci jamono ji ñu toll tembe xam naa eh, danañ ci ñëw nan lañ mën a liggéeyale sëriñ bi eh, sëriñ Mamour dañuy dellu siwaat waaye dafa am ñetti baat yoo xam ne ku tedd ki daf ko waxoon muy lu am solo loo xam ne ñetti baat la gaa mais daanaka mënees sa cee dégg jenn wax sëñ Tuubaa dane am na koo xam ne dafay jaamu yàlla boole koog di ma liggéeyal am na koo xam ne itam dafa may liggéeyal waaye jaamuwul yàlla am keneen koo xam ne dafay jaamu yàlla waaye liggéeyalu ma eh, ñetti baat yooyu naka lañ ko mën a déggee ci jamono jii waaw. waa xam nga da yoo xam ne sorewuñu sax lool na xam nga liggéeyal ko ci jaamu yàlla bokk. Mm-hmm. ndax sëñ bi li mu noonu santaane ci liggéeyal ko lépp lenn lu ci génn jaamu yàlla amut. dëgg la ndax liggéey bi ñu ko liggéeyal yàlla ñu ko liggéeyal. Mm-hmm. waaye nag eh, dañ ca xëy na xëy la ca la ca la ca dolli ko mooy ndigal rek doon gëm doon ndigal. Mm-hmm. ndax. lam leen daa yare mhm. la jiitu mooy jàmm yar ca la leen daa yar yar leen ci euh, sellal seeni xol ndax am boo gis ay waxam lépp loolu wax mhm. ba muy wax bokkam ya ne leen jamaalikum ilmu wa sa'yun wa adab falazimooha yun fa andukul wa adab seenu taar yéen mhm. mooy euh, xam-xam ak jëfe xam-xam ba jëfe gi mooy jaamu yàlla gi na ngeen taxoog ñoom kon dina fegal su ul xaal waaye ñu gis ne bi nga xam ne jaayante nañoo ak moom taalibe jaayante nañoo moom mm-hmm. maa leen def leen ñu da bàyyi leen ñuy bàyyi mm-hmm. bu dee jëmmi jaamu yàlla nekkul lu ñu tàggoo lu ñu xaar ndigal ndax suñu doon da ko digle ba noppi waaye li liggéey yi muy digle waan nag mm-hmm. muy muy muy muy moo xam ndigal lu ma doon ndax kenn ku nekk dafa am lu mu la féetale woon ndax ni mu doon tërbiya kenn ku day xool la gën a yelloo day mel ni docteur boo xam ne xam nga médecin su fekkente ne dañ la malade yëpp genn garab nga so baa la ngay lor mooy ëpp la ngay la la la ni ni maladie yi wute noonu la médicament yi di wutee dëgg la moo tax kenn ku nekk ay gam lay liggéeyloo ñii jàng alfaan leen liggéeyloo ñii bay leen liggéeyloo ñii eh, kenn ku nekk lam lay sant dëgg mm-hmm. loole nag nga féete ca sàkku ca ndigal ngërëmal yàlla mm-hmm. ci lu bokk te jëmbi jàmm ko loolu mooy liggéeyal ko waaye su fekkee ne nangaa féete woon ne moom laa ci moom laa aju mm-hmm. waaye jàmm yàlla da nga woo jaamu yàlla wax naa ko leer naa ko mooy ay baadal ni la nam nam nam nam euh, composé woo mhm. waaye nag la muy santaan def ci ci loo xam ne lu jëm ci boppam la nangu ko caa def dara mhm. mooy nangu ko jox sa alal ni ko suñu boo waxee léegi mhm. jox sa ci la bokk nangu ko ñaqal subaa mooy jaamu yàlla te liggéeyalu ko la ah. waaye liggéeyal ko nag te jaamoo yàlla nga xam ne maanaam lu mu santaane ci liggéey yaa ngi ko di waaye ne jëmmi jaamu yàlla ga muy julleeg ko mhm. bu ci nekk da dafa am lu mu ci wax waaye ba ci gën a mat nag mhm. mooy jaamu yalla ba da ko di ko liggéeyal ca la wax ne moom dana tàbbi aljanna mhm. bi laa ci lu xisaab bi tey ak xisaab bi ëllëg la xool tey duñu la seet duñu seet ëllëg waaye su fekkente ne ka xam ne dafay dafa dafay dafay da koy liggéeyal te jaamu yàlla mooy dana tàbbi ajana naam waaye gannaaw xisaab ju metti nag fii ci àdduna ndax ñàkk jaamu yàlla gaa tax maanaam dana sonn fii daal waaw mm-hmm. dana sonn mm-hmm. ndax ga sunu booma ko digle nga bàyyi ko faaw da nga sonn mm-hmm. uh, ba ko ñetteel nag moo xam ne defoo ci lenn ñoom ñaar koo la wax moom ci fenu leer nañ ci la mooy jaamur yàlla liggéeyalu ko mm-hmm. kon mooy da ngaa koy aju ko awtur la dëgg la mooy jaamu yàlla liggéey kon mooy aju nekkoo fenn kon yow mm-hmm. moo tax mu ne kon kooku ci fenn fenn weex daal la nekk dëgg la kon daal daa boo mm-hmm. benn la ñu xam leen teqale mooy ndigal gi rek mooy dañ la ko digal lay digaluñu la ko lee nekkoon digal lu matale li nekk ndigal lu bees lu wàcc ci moom loolu moo leen wutale waaye lépp jaamu yàlla dëgg la waaw loolu am na solo ndax euh, maa ngi dégg ci nettali yi ñuy wax ne am na mag ñu ma sa Euh, di di di ko wax ne dañ laa bëgg maanaam bëgg koo xam ne daal dox na seen digganteek ak jaamu yàlla euh, maanaam ne ko daal bàyyi nañ lu mel ne ma ma ma déggee ko ci jamono euh, jaamu yàlla ak xidma ne ko bàyyi nañ ko daal sëñ Tuubaa ne bu ngeen demee boole leen ci bàyyi lekk ak naan <laughs> mu mel ne <laughs> taxawaay bi ci sëriñ bi amoon mu mel ne kon faaw nga boole yëpp faaw nga boole liggéey waaye faaw nga boole ci itam jaamu yàlla Euh, boo xoolee ci jamono mel na ne yàqu-yàqu yi xam naa sëñ Abo sax foofu la ñu mal ñu bëri ci murid yi wala lenn ci ñi ma ko sañ wax bokk euh, dañuy jàpp ne moom mën ngaa toog ci sa broq rek daal seet li la doy euh, wala li nga jàpp ne daal mooy loola nga nekk ca donte moom xëy na jàpp jàpp nañ ne du loola bëri na lool nag lu muy yàq bëri na lool lu muy yàq rawatina xeetu woote ñëw kii woote jóge jëm fële te li ci ëpp daanaka boo dee xool ba ca biir jëmul ci sëñ bi boo bëggoon a orienté murid bi dëgg ana ci ban yoon nga koy teg mu mën a dëgmal fi nga xam ne foofu la foofu la sëriñ bi bëgg waaw li yàq lépp mooy mooy mooy loolu nga ji ñu noonu ba àdduna sosoo ba léegi amul mel mbir moo xam ne dana defar loo xam ne nit koy da koy xalaat ci xelum boppam képp tege ci xam nga lislaam dañu ko wutal ay toxal si naa waxoon ne mhm. ah, sunu mbir mii muy diine jii mhm. ci ay tuxal la cosaanoo mm-hmm. diw neen diw neen yénte bi nee na mm-hmm. waaye du loo xalaat ci sam xel ba mu jure nga def mm-hmm. diine ajuwul ci xelum kese dëgg la léeg-léeg dana am lu rafet cim xel mën a jub cim xel te du jub ci diine te ci diine am itam léeg lu jub ci diine te du jub cim xel dëgg la ci <laughs> diine kon des ko tënk ci ci am xelum kese kon ma lépp ci toxal ak ndigal ci lay aju kon la bi la bi bi kon moom leer na nañ bu ñu xoolee ñim yar mhm. ak ñim ju lañ nekkoon nga xam ne kon lii mooy léwér mhm. ndax lam leen yar ca lañ ca ba te fekk nañ fi ñu baree bare dëgg la ñi ñi ak njabootam fekk nañ fi ñu baree bare ñoo bokk luñ doon jëf mhm. buñ delloo ci ay mbindam loolu rek la ñu fa fekk kon lépp loo xam ne wuute nag mbindam wuteeg jëfi ko mu yar wuteeg mm-hmm. jëfi ko mu jur mm-hmm. kon nga jàpp ne kon loolu wérut mm-hmm. loolu wérut te bu ñu xoolee léegi nag yu baree bari dañu sukkandiku ci yoo xam ne yu bees la yu taraw xëy na ñenn ñi sax yëg-yëg ba ñu koy gën a <laughs> jàngat ci ci ci ci ci duruskat yi duruskat yi xase yi dañuy gis ne àgg ci foo xam ne daanaka seen doxin bopp la ñuy dox dëgg la mas na maa jaar fii fii ci place sëñ ma sëñ bi timis am koy julli jubli ci jumaa ji ndax loolu kon moom moom ci xelum kese boppam képp la la ko teg dëgg la dëgg la ak yu bare bare bare yoo xam ne ah, ci ay wax mhm. day wax wax yu ëpp ëpp la jël xasiir teg ko ci kaw alxuraan la jël Sëñ Tuubaa teg ko ci kaw yun saas yëpp da ngay gis ne dañ ko def te yëpp day mel da ngaa weddi Sëñ Tuubaa ci boppam dëgg la da ngay wane ne da ngaa da ngaa weddi mhm. bu Sëñ Tuubaa ne Abdullahi wa Xaadimu Rasuuli mhm. nga a ko déedéet eh, yonent bi kan moo yaa ko gën kon weddi nga weddi nga kon la wax sëñ sëñ sëñ bi nga njëkk a weddi waaw ah, mu nga njëkk a weddi bi da nga daj awee xam sànni lam saxal yow mhm. moom nga sànni fee dëgg la jaamu yàlla nga ne ko yàlla nga mhm. kon mooy weddi nga nga wax ne jaamu yàlla nga wérul képp ko am xel wóor na rasulullahi mooy sama sëriñ mhm. nga ne ko déedéet li nga wax wérut yaay sëriñam mooy mooy da ngay won da ngay gëm sëñ waaye da nga ko wedd yow dëgg la bu ñu xoolee sëñ bi loolu dansé bi ci nekk bokk na ci xëy na ki ci biir mhm. xëy na dina xam li xew am sëñ mhm. Mamor moom xam na li xew am euh, sëñ Sahibu itam xam na li xew waaye ki ci biti nga xam ne xamagul sëriñ bi déggagul sëriñ bi bu gisee yu mel noonu mën na caa atte woo waaw xam nga loolu ñu bari sax ñaar ñi dal ci kaw yoon wi leen wax la ndax communication dafa dafa dafa dafa kiimaane dafa mm-hmm. la la a mm-hmm. eh, indi mm-hmm. dafa dafa dafa yaatu dëgg la bu ko defee nag fekkente ne te boo demee ci internet beeg yëpp loolu nga ci fekk mu fees ya del wallaay eh, ñaari ka koy ka koy wax mbaa ka koy def du du du jàng la mu war a xam du ko xam dëgg la lépp ci kaw yu ak sukkandikuwaay lay jaar yoo xam dara wéru ca kon la am solo mooy delluwaat ci cosaan wax naa ko léegi bu delloo ci ay mbindam daañu xam baax moom position am ak fa mu nekkoon ak fa mu tegu fa mu teglu woon dëgg la boo xoolee ñi mu yar mm-hmm. la ñuy dund nga xam ne mm-hmm. koo ci dem ci ñoom mm-hmm. bu dee xam-xam moo la koy ëppale fuuf bu gën laa gën lu baax lépp daje ci ñoom nga xam ne kon lii mooy li sin waa def ci ñoom njabootuk boppam gi xoolal sin sali ku ko gën a yaru ku gën a dëgg eh, nam feese xam-xam ak wa waaye boo ko xoolee ci jëm jeeg toroxlu geeg taalibe gi da ne dëgg la ci ci saahir da nga jàpp ne ko xamul dara la dëgg la boo daje woon ak moom te xamoo ko sax da nga jàpp ne kii du moom <laughs> da nga koy déggee kon ñooñu mu yar nag loolu mm. nga gis ci moom loolu li wér mm. te bu dee ne ci ëpp ci ñoom ci ci xeeti yooyu ñoom la mm-hmm. mag ñaañu dàq jàng xasaayit fuuf mm-hmm. am ñoo xam ne dañuy wax ne jébul naa ci xasida sàngam mm-hmm. loolu bu amoon <laughs> bu yoroon jafe nga jëm ma ngi dañ daa jébula tey jàng xasaayit <laughs> da ngay la te jàng xasaayit mhm. ki li mënta ñàkk am ñu dem sax ba naan maay xasida gi waaw mhm. yëpp ay ay ay ay yëf la yoo xam ne yu bees la maanaam euh, def ay kuréel ñi mooy kuréel maraaxib ñi mooy kuréel nangam xam ne waa kuréel maraaxib jàpp ne ku jàngu maraaxib jàngoo dara xasida ko mën a jàng <laughs> nee ko ci dara ndeysaan loolu nag indi ay kalaan yoo xam ne kenn xamul nañu xam daal loolu dara wéru ci dëgg la ay ay ay ay ay lu ñu sos la lu bees mhm. loo xam ne bokku ci mm-hmm. euh, la sëñ bi indi woon moom lu sell la mm-hmm. lu la lu loo xam ne da lu la luñ la gëm la woon la ko te nga xool ko foo gisoo ko fi rek jàppan lii lu mooy loola jërëjëf mm. euh, xam naa waxtu bi ñu cërale woon daanaka jeex na xam naa sëñ Abo ñaari minute rek ñaari minute euh, nga nga tënkal ñu rek jamono ji rawatina technologie wala communication ki jóg bëgg a sëriñ bi fan la ci war a jaar ak lu mu war a moytu xam naa nga tënkal ma ko ci deux minutes parce que waxtu bi jeex na waaye jamono ji daal moom xam naa ne du lu ñuy moytu daa baax na ci lool waaye eh, principe bi ñu sëñ Tuubaa indi ci mhm. liggéeyal mhm. yàlla mhm. buñ ko exploité na mu waree eh, appliqué ko jàpp naa ne mën naa waxuma la sax defar sunu diine defar sunu may ñu ñu yokk ci wàllu bëgg yàlla waaye mën naa defar lu bari bari sunu àdduna dëgg ndax xam nga àdduna léegi ni mu nosoo yi nga xam ne léegi lu ci bari ci ay oneeg lu ne ñu ngi bëgg soññ ni ñi ci ñuy def ay bénévolat di di di di di def volontaire ci dara te loolu lépp fekk na ñun suñ jubaa jàng nañu ko yàgg-yàgg euh, jàpp nga ne yow ñëpp da nga ciy xool sëñ Tuubaa ku ne jàpp nga ne taalib sëñ Tuubaa la ku ne ba ci yéefar bi sax mm-hmm. mbindeef la moo xam ne sëñ Tuubaa war na caa liggéey liggéey ñoom sansalam ci xettali ko mhm. nga ciy wut ngërëmu sa Tuubaa mhm. ci jariñ ko mhm. kon li mu laaj mooy nose ko rek fexe ba teg ay priorité fexe ba mbooleem li àdduna la euh, ci wàllug faj fi mu ne nii waroon nañoo fexe ba murit yi tabax ay fajukaay yu baree bari yoo xamee ne la ca war lépp ci wàllug dim jàppale ci nit ñi jàpp naa ne boo sëñ sëñ Maamor na ko ci buntu xit buntu sadaqa dëgg la ci masa euh, masalikul jinaan mhm. sëñ Tuubaa indi na fa yu bare bare bare mhm. te boobu gannaaw bi mu waxee ne ahlul xidma kon lam fa indi lépp jàpp nañ ne mhm. buñ ko jëlee defal ko ay ay ay structure yoo xam ne da koy saytu euh, di ca ci wàlluk santé ci wàlluk euh, éducation ci wàlluk jàppale nit ñi xeex ñàkk ci wàllu yu bare bare bare nga xamee ne waaye eh, ni ñuy defee rek nga xam ne dajaloo suñuy daayira yi mhm. di togg ak a lekk rek mhm. baax na lool waaye jàpp ne alal jooju ñu jëloon ko mhm. dugal ci loo xamee ne dana jariñ nit ñi te eh, dèjà léegi am na daayira yu ko tàmbalee def booy xool lu bëree bëri ci éclairage public bi fii ci Touba ay daayira ñoo ko def daayira yooyu nekk bitim réew wala ci réew mi xidma lañ doon def loolu dëgg la la ñeneen ñi ñëw euh, ci waa mat la euh, muxaddamatul xidma ànd ak ñoom li ñuy def ci wàllu Mm-hmm. armeel yeeg mm-hmm. ak euh, ñii di tabax ay fi ñuy def ñi wàññi koog yooyu. dëgg la yooyu yëpp ay ay ay ay ay ay ay. Xidmatul Xadim waaw Matlabul Fawzayni Tuubaa ca kanam. Mm-hmm. waaw bu ko defee. Euh, énergie. ak euh, bi nekk ci ñun. ak man-man ci doole ci alal. ak yooyu ñu gën koo organiser rek. fexe ba. mu feeñ mhm. njariñ Sëñ Tuubaa mhm. ak euh, feeñ ci mhm. taalibe yi feeñ ci jullit yi feeñ ci ñu dul jullit ñu xam ne Sëñ Tuubaa leen ko jariñ yooyu jàpp naa ne mooy yoon wi gën a gaaw ci tas yoon wi ak wane njëriñ li Sëñ Tuubaa amal mbindeef yi dëgg la kon ñu ngi nuyu bu baax baax di ñëpp jërë jërëjëf euh, jërëjëf mbokk yi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ndokkeel di rafetlu euh, taxawaay bi ak ànd bi ngeen àndoon ak ñun Euh, xam naa kon dañuy daal di yëkkati jataay bi rek euh, sëñ Mamor xam naa ñu tàggoo nga nga tëj rek euh, sëñ Abo tëj bu ko defee ñu yëkkati jataay bi incha allah. waaw tàggoo bi mooy rek sant la. Hmm. waaye sant itam groupe Futurs Médias. ci liggéey am solo yi nga xam ñu ngi koy def ci màggal gi. tàmbali woon at yi yëpp ñu ngi koy def. dëgg la yu rafeta rafet yoo xam ne ñëpp apprécié nañ ko ñëpp rafetlu nañ ko. dëgg la ñu ñaan rek dal ci njiit li ba ci kii ci mujj. Hmm. yàlla gën a dëgëral. groupe bi amiin gën ko saxal ba liñ ci yéene suñu bon def lañ la koy njort amiin yaa rabbal aalamiin maa ngi ko doon wax sax daaw daaw daaw jéeg ne leen TFM mooy télé bi feesal màggal gi télé bi feesal màggal gi loolu xam naa sëñ Ibrahima Cissé ñoom danañ xool fu ñu ko bindee <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu jërëjëf eh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ boo yow itam nga tàggoo rek xam naa ñu yëkkati jataay bi hmm. waaw di leen sant bu baax baax rek hmm. Hmm. di leen sant bi ci yaw comme ñu fi taatal jërëjëf di rafet bu baax a baax tamit liggéey bi ngeen def mhm. di leen ci ñaanal yàlla dëgëral leen ci mhm. taxaw leen ci ba fi ngeen ko mhm. bëgg a àggale fi ngeen àggale ko jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf euh, sëriñ Mamour Mbacke xam sa diine euh, jërëjëf itam euh, sëriñ Sohaybou Kebe sëriñ Abo jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon déglu ak seetaan seen télévision Futurs Médias ñi ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci bàyyi gi xel di gërëm it xam ne ñoo jàppoon ci liggéey bi eh, di gërëm bu baax waa Tapirous bi nga xam ne ñu ngi fii ci Touba Mbacké eh, fële ca Touba Xayre jàkkaarloo ak eh, kër Serigne Abo mbaki moom Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ñu jàpp bu baax ci bu baax ci wàllu ko liggéey bi ci salon yi ñu toog ñi ngi leen ci gërëm bubaax baax a baax kon ñi nga xam ne soxla woo ngeen lu ni mel dawal leen daw leen seeti Tapirous ña nga fële ca Touba Xayre di gërëm it mbokk yi nga xam ne yëpp ñoo jàpp ci liggéey bi waaye di leen jox dig daje ci kanam tuuti bu 15 fajar jotee di ñetti waxtu euh, oustaz Pape an bu télévision Futurs média dana ñëw indi leen waxtaan bu am solo dana invité ay ganam buñ ca noppee bu 16h30 jotee 15h30 euh, la Pape Anne di ñëw ñetti waxtu bu tegalee fanweeri minute euh, ñeenti waxtu itam bu tegalee fanweeri minute Serigne Djili Niang dana fi dalal waa Touba ca kanam ñoom itam ñuy amal liggéey ba am solo. ci dëkk bu tedd bi la di Touba Mbacké ak li ko wër kon bokk groupe Futurs Médias ca kaw ca kanam Eh, télévision Futurs Médias ca kaw ca kanam RFM itam ba ma nekk ñoom itam ca kaw ca kanam eh, ñu leen di gërëm bu baax di rafetlu itam jàppandal gi ñu jàppandal ba ñu mën a ñëw file ànd ak eh, yéen liggéey bi di yitam itam mboolem ñi jàppoon ñëpp ci wàllug liggéey bi Ibrahima Cissé ak ñoom bisaan ñi nga xam ne soxna Fati Dieng Serigne Jili Ñang démb ba tey wala barki démb fan yëpp ñi nga ànd ci wàllug liggéey bi mbokki ñu leen di jox dig daje ci yeneen i jataay ci télévision Futurs média ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp di balaq ñëpp di balaq ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Aja